ñëwaat nañ ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne daayira muxadamatul xidma moo koy amal fii ci jumaa ju mag ji di jël ay tomb yu am solo yoo xam ne dañ koy jàngat di ko séq ak boroomi xam-xam yoo xam ne doyloo nañ seen xam-xam ci barab bii tey ji nag ñu jëloon tomb bu am solo ci biir tomb yooyu muy xaqiqatu tasawuf alxadimi lan mooy dëgg-dëggi tasawuf bi nga xam ne moom la cheikhul xadim radiallahu taala doon dund ca it ca la nekkoon ndaxte jamono mel na noo xam ne ñu bare bari xëy na ñi ngi yëngu ci tasawuf ba ku ñu laaj dangay wax ne man ab suufiyu laa boo ko waxee ba noppi itam mën naa am xëy na buñ la laajee doo xam dëggi dëggi lan mooy tasawuf te manees na laa askanale ci sëriñ bu mag bi radiyallahu taala kon jaadu na buñ doonee ay suufi yu ba noppi ca askanoo ci sëñ bi ñu xam tasawuf bi nga xam ne moom la sëñ bi doon dund dëgg-dëgg ndax xam gi mooy tax ñu mën a roy fam nekkoon mooy tax nam ko daan dunde ñu mën koo dunde noonu ki ñu war a defal waxtaan wi nag di sëriñ Aafiya Ñang di ko ñu miin ci taxaw yu mel nii di ko ñu miin ci jataay bi itam yaakaar na jamono ju nekk ci koor yi jàll dangeen ko fi gis muy taxawe waxtaan yi ñu koy sant bu baax itam ci jàppandal gi nga xam ne jàppandal na ko boppam ba jataay yi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul ma da koy def ngir di ko dundalee koor gi mu bokk ci ñi koy taxawe kon xam naa du ñu guddal ci ubbi gi dañ koy daal jox rek mu dugg ci biir waxtaan wi ngir lim waajal xëy na mën naa am lu xaw a euh, bari la lool ngir nit ñi gën cee mën a jariñu ba nga xam ne li mu waaje lépp dina ko mën a indi bu ko defee sëriñ bi kon dañ lay jox nga dugg ci biir waxtaan wi kon bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd yi di weeru koor di ñaan sunu borom ñu ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim ñu génn ci ñu ci alhamdulilah rabbil alamin te li ñu ci sant ñu góorgóorlu ci kem kàttan joxe ko suñu borom may ñu ci ak wér ak kàttan ak ki jàpp ndal ak tawfiq bañ mën koo taxawe te lañ ci séentu ci ay yiw ki tiyaaba ak njariñ yu dellu ci xeet wi lépp ñu defoon ci lu koy jot di ziyaara bu baax baax kilifa gu mag bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di ñaan yàlla yàggal ko ci suñu kanam te wéral ko kàttanal ko ba mboolem li mu yéene liggéey ci lislaam lépp mu def ci lu koy jot di ziyaara kilifa diine yépp di leen ñaanal taxawaay yu demee noonu gannaaw loolu ni ko sëñ Assane waxee maa ngi jëkk a sant daayiratu muqaddamatul xidma di leen jaajëfal ci taxawaay am solo yi ñu taxawee ci xam-xam ak yeete ak taxawee taxawu barab bii ba mu man di ba ba ñi fi ñëw di fi jaamu si borom bi subhanahu wa taala maanaam dëppoog anam dañuy sàkku ca ñoom ndax ñu mën leen nandul rafet seen taxawaay bu baax di yàlla dolli leen kàttan euh, dolli leen aar itam musal leen ci mbooleem ndog yi ak gàllankoor yépp di nuyu baax sëriñ Afiya mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi euh, di nuyu mbokk yi fi teew yépp nag euh, di leen ziyaara di leen ndokkeel ni mu ko waxee kon tomb bi ñu bëgg a waxtaane mooy dëgg-dëggi tasawuf bi sëriñ bi doon dund Cheikhul Xadim radiyallahu anhu bi mu doon dund te doon ko dundal waxtaan wi nag dana am uh, ak uh, njalbeen ak ubbi ñu ñu tudde muqaddima danañ ci wax ñaari tomb tomb bu njëkk bi mooy ci sëriñ bi fekkoon jamono fii ci réew mi waxtu wa nga xamee ne ca la doon yëkkati bi islaamam bu rëy ba mu woote woon euh, bañ di ko waxtaane tey bii fi mu fekkoon réew mi ci jooje jamono loolu dañ ko wax ci ubbiteel waxtaan wi ndax dana am solo ci biir waxtaan wi ñaareel bi mooy tasawuf bi ñuy waxtaane soloom ak wàccuwaayam bi mu am ci biir woote Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kon ñaar tomb yooyu la ñuy wax ci muqaddima bi insha allah bu ñu duggee nag ci xolu waxtaan wi dañ koy séddale ñetti tomb ak tënk bu koy tëj tomb bi dëkk ci ñetti tomb yi mooy eh, tasawuf ci biir taalifi sëriñ Tuubaa yi waaw bu tasawuf ñu ñëwee ñu sëriñ bi wanee tasawuf ñu ko jàngalee ñu ko leerale ci biir ay mbindam tombu laawe bi mooy ni ko jëmmalee ci jëfi boppam ñetteel bi mooy ni ko jëmmale ci biir taalibe yi nga xam ne ci taalibe yi nga xam ne ñoom la doon yar ñu àndoon ak moom te ñooñu ñooy royukaayu képp ku war a doon ku dikk di taalibe bu topp yoonu sëriñ bi ci biir lislaam bu nag bu jógee ci tomb boobu nag ñu doog tënk tënk boo xam ne mën nañoo jox xalaat ci lan mooy dëgg-dëggi tasawufu al cheikh al xadim radiallahu anhu sëriñ bi muy seen jamono ci atum junni ak ñaari téeméer juróom ñaar fukk ci gàddaay gi Euh, dëkkaaleeg boroomam wuy ji ci atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom benn maanaam ci mujjug xarnu ñetteel bi ak njalbeenug xarnu ñeenteel bi ci gàddaay bi tolloog lu jub fukkeelu ak juróom-ñeent ak ñaar fukkeelu xarnu ci taarixu gane àdduna yonent yàlla salaam diggante boobu nag réew mi ñu nekk di ko wax Sénégal booba ni mu meloon wute na ni mel léegi ndax booba tuddagul Sénégal te ñu ko jox léegi ak digg yi mu am ci jamono ji nii boobee loolu amagul woon booba ay réew réewaan yu bari ñoo nekkoon ci senegaal ñoo ñoo dajaloo woon dex gi ñuy wax Sénégal ëmb leen mën nañ caa tudd Kajoor mën cee tudd Bawal mën cee tudd Njaambur mën cee tudd Casamance mën cee tudd Bundu mën cee tudd feneen ak feneen lenn benn barab bu ci nekk dafa doonoon réewum boppam mu amoon buuri boppam ak seen doxalin ak seeni aada ak seeni cosaan am seen diggi bopp yoo xam ne dañ koy seq ak ñeneen nga xam ne kon nekkutoon menn réew mu ànd nekk benn na nekk ci genn kilifteef kon noonu la réew mi tëdde woon kon wute nag léegi ci googu wàll booba itam ci jamono jooju muy muy feeñ bay woote fekkoon na ñetti doole yu mag a mag ñoo nekkoon di jaamaarloo ci pàkk bi ñuy tudde tey Sénégal mooy yi fi nekkoon bu jëkk te daan dooni buur yoroon kilifteefu nit ñi ci wàllu àdduna ñu leen daan wooye caddo yi doole lañu woon ju amoon euh, yu fi nekkoon doon téye li ñu yor di ko aar di bañ it mu rëcc ko ak doole joo xam ne ñi nga xam ñoo nekkoon ay jullit mbooloom jullit mi fi nekkoon ak seen jiit ya leen doon jiite lislaam ak kilifaam ñoom it doole lañu woon ju fi nekkoon yoo xam ne booba seen doole bariwutoon lool man ñoo xam ne doole yi yi ci ëppoon waaye tey doole ji fu nekkoon la joo xam ne kenn mënu ko woon réere moom it mu bëgg a yaatu bëgg tasaare woto lislaam ba noppi bëgg a aar boppam itam aar diineem nekk kon doole joo xam ne loolu ñu dëgg ñu ko seqal bëgguñu bëgguñu loolu mel noonu am amaat yeneen doole nag di jóge ci bitti joo xam ne moom da leen wër réew yi di ko not di ko dugal ci kilifteefam muy nit ñu weex tubaab yi jóge woon ca tugal di not réew yi jamono jooju fekk ñu yàgg Sénégal lool di fi yaxantu ba yàgg nag ci bëgg a àgg ci nag bëgg nag not réew mi bañ a teyoon ci yaxantu xanaa bëggoon ak téye réew mi fab koom-koom bi di ko jaay ñoon nañ ko bëggee nit ñëpp nekk ci seeni waaw di ci wéy ba li bëgg ñu koy am ni ñu ko bëggee tam bañ a tee jeex doole jooju itam nekkaat fi moom it te am te réyoon lool ñett doole yi itam ñoo fi nekkoon doon jaamaarloo loolu jaamaarloo yu metti yooyu juróon na ay fitna yu tara tara tar yoo xam ne tax na ñu amul woon jàmm xeex yi dafa bari lool lañ jugee ci xeex ci fitna ci bakkan yu rot ak alal ju yàqu ak ñàkk dal buy am nit ñi duñ tala jaamu yàlla jaamu yàlla gu jaar yoon buñ tala liggéey duñ tala dund dunduk mbooloo bu dal yooyu yëpp doon ay fitna yoo xam ne juddewoon na ngir jaamaarloo bi nga xam ne doole yooyu doon nañ ko jaamaarloo xam nga ni ceddo yi doon nañ jaamal rek seen biir ñoom kenn ku nekk bëgg a aar sa bopp léeg-léeg bëgg a sax nangu sa moomeelu moroom boole ko ci sa moomeel kon ci diggante réew yi seen bopp daa nañ xeex ñu ay réew ci biir daa jaamaloon seen bopp ngir bëgg a notante mel réew mi ci boppam itam ña war a faru ci biir réew mi daa nañ jaamaloon ñoom ci biir seen biir ndax euh, euh, jaret bi war a falu bu nekk néeg bu war a falu bu nekk néeg yooyu falu ñu jàpp ne war nañoo falu mën nañoo limi te ku nekk da bëgg a falu jàpp ne sa morom dinañu ca na am nag ci nga xam ne dañ leen daan not di leen bundu xataal di leen fitnaal te dara taxul lu weesu rek jàpp ne bu ñu àggee fa ñu war a àgg boo tiit ñoom ñi seen cër bi ñu am danañ ko ñàkk ñu jàmmaarloog jullit yi itam waaye ceddo yooyu daan doon nañ jàmmaarloog doole bi suñu waatoon ginnaaw bi doole tubaab bi ceddo yi kon doon nañ jàmmaarloog tubaab bi ndax tubaab bi daa bëggoon not réew te booba ñoom jàpp nañ ni réew mi seeni la ñoo ko war a aar euh, waaye tubaab yi daana jaamarlu geneen geneen doole ji muy jullit yi lislaam bi ndax booba it moom jàppoon na ne gàllankoor bi gën a ko mën a yàqal mooy lislaam ju dëgër ju ci réew mi kon jaamaarlo yu bari yu moo amoon ci biir réew mi ci jamono jur fitna yu metti ak jaxasoo na yàqu bu rëy rëy rëy amoon na ci biir réew mi jikko yu yàqu ñu bari seen jikko yàqu ñu bari seeni pas-pas yolom euh, ñu bari itam dëgmal àdduna lool di ko sakku réer bi itam yaatu lool tasaaroo ak bidaa yi mooy yiy sos dugal ko ci diine te bokku ci sunna si yonent bi sallallahu wa sallam tumuranke yooyu yëpp doonoon ay jafe-jafe yu baree bari yoo xam ne jamono yi sëriñ bi feeñ ba tàmbalee woote wootem bi jafe-jafe yëpp fekkoon na ko ci biir réew mi mu mel ni ñetti ñetti euh, taxawaay maanaam ñetti yitte ñu ngi ci kanamam yoo xam ne yépp dañoo bëggoon mu taxawe ko mooy lislaam bi ci boppam soxla woon na ku ko aar lu aar lislaam bi ba mu yoŋ defaraat pas-pas yi defaraat jikko yi jubbantiwaat doxalin yi ak ni ñuy jaamoo yàlla ba mu dëppoog na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon kon diine ji boppam ñu ko doon xaar di séentu mu liggéeyal ko yeesal ko waaye réew mi itam mi ngi ko doon mi ngi ko doon xaar ngir bëggoon ku ko xettali ci noteel bi nga xam ne moo ko moo moom lañ ko doon not si muy noteel bu jóge ci bitti ci bitti waaye itam nit ñi itam yàqu tey nga xam ne amoon na ba nit ñi amuñu jàmm koom-koom bi daanu eh, nit ñi taratuñu jaamu yàlla maanaam mbooloom mu dëkk ci biir mi daal seen dundin sooxe lool tumuranke ah ñu ngi leen séntu ku ku leen delloo si ñu am jàmm amul dal liggéeyaat wóoruyaat seen bopp ba mën a dox ba tolloog yeneen xeet yi nga xam ne ñoom lañ bokkal àdduna lii lépp di ay taxawaay yoo xam ne ñu ngi ko doon séntu ci moom te loolu yëpp nekk lu waajal ci biir ab wooteem ngir mu taxawe ko woote bi nag woote Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu boroom xam-xam yi gëstu buñ ko dee xamle dañuy wute lool ci niñ koy xamlee euh, ku nekk ak na nga jàpp ne na ko na nga koy na nga koy wane ak na nga koy xamle waaye def naa yooyu yëpp nag dara du ci gën a wér la nga xam ne moom moom la waxal boppam ne loola la indi loola lay def loolaa ci gën a wér ñu ngi jàpp na incha allah ci xamle gi ñu bëgg a xamle wooteem bi dana sukkandiku ci moom ci boppam ni mu ko xamle wootet Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom lañu ñu mujj di ko wooyee yoonu murit woote boobu mooy woote bi nga xam ne ma ngi ko yëkkati siiwal ko ca Mbàkke Kajoor ci atum junni ci mujjug atum junni ak ñetti téeméer rek euh, ci atum ci atum junni ak ñetti téeméer ak njaal beenit atum junni ak ñetti téeméer rek benn ca Mbàkke Kajoor nga xam ne ca la taxaw siiwal woote ba wax ko ca kaw ba ñëpp dégg ko donte am na doxi moom daa doxe ñu xam ne kii am na fu mu jëm am na lu bëgg am na ñu ci bëgg àndal itam waaye foofu la ko fësale nag siiwal ko woote boobee mu yeesal ca sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu jàngalewaat ci lislaam njàng ni wu wu wu ñu dëppalee na ko ko yàlla yónni woon sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalee woon jàngale moo xam dañ koy jëfee nañ ko daa jëfe ca waxtu wa nga xamee ne te yàlla yéen noonu lañ ko daa jëfee euh, nga xam ne kon yar salaat lislaam pas pas pas ci wàllu pas pas ba mu dëppoo pas pas dëppoo pas pas euh, yaa nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi jàngaloon saxaaba ya ñu nekkoon ca gaa yi salafu saalih roy leen ca del jàngalaat yi bañ pas pas yooyu nekkaat ci ñoom lépp lu ca bokkul ñu génne ko ci jàngalaat leen jaamu yàlla ba lu muy def lu muy ñuy dëppale ko sunna sent bi di ko def muy ñu leen digal moo xam digal la day sax day wér ne lii ñuy def bu bidaa lu yàlla digle la yonent bi sa digle ko ñu door koo def te buñ ñu def defi ñu di ko defee nañ ko santaanee bu ko defee itam njàngale moo xam itam day làmboo yeesal boo xam day làmboo itam defal jikko yi ba mu mel ni jikko yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne moom laa damaa dikk ngir mottali ko innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon yeesal lislaam lislaam te lislaam ju wér mooy ju dëppoog sunnat yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mooy woote boobu nga xam ne yeesal na ca lislaam jàngale ca sunnat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp ci xaaji diine yépp di woote boo xam ne ci la yeesalaate yoonu gaa yu baax yu njëkk ya maanaam ci la yeesalaate tasawuf tasawuf bi nga xam ne ci jëw di jamono tur yi moo fi ëppoon doole jëf ji jëmm ji tur moo fi ëppoon doole jëmm ji mu ñëw dundalaat ko yeesalaat ko euh, jàngalewaat ko jëfe ko euh, yare ca kon ci woote boobu kon yeesal na ci tasawuf ñu ci yeesale sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam te tasawuf mënee su koo génne ci biir sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy woote boo xam ne am na yoon ni nit di def ba àgg ci boroom jege ko nit ni muy def ba àgg ba jege boroomam xam ko am ngërëmam ni muy def ba am loolu woote bi ëmb na ko ëmb na ko mooy wuti tariqa ëmb na ni ñuy def ba defar am réew ba koom koom-koom ba kaw euh, dox bu baax ba yegg fañ ko yaakaare jàmm ja matale déggoo am ca biir waa réew ma dundin wa jaar yoon kilifteef ga ñu di ko yor ci yor yu jaar yoon loolu woote bi lamboo na Euh, làmboo na itam euh, loolu kon woote la boo xam ne dafa yaatu matale ëmb ëmb lépp loo xam ne dundu doomu aadama yittewoo na ko te lislaam ñëwoon ngir euh, wance doomu aadama aw yoon woote bi làmboo na fànn yooyu yëpp kon woote bu yaatoo yaatu la boo xam ne du woote bu xat du woote bu ñuy jàppee jël benn xaaj ci diine ji rek tudde ko woote bi kon noonu la ñuy waxe woote bi loolu nag am na ci firnde boo delloo ci mbindam moom ci moo wax ne diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi mujaddidu diine ji islaam ku ca nekk yaa ca nekk waaye yàlla moom jàppewu la euh, ku ko nekkal ku ne ci diineem mu ne nag diine jooju la yeesal bi Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, laa fas yéenee yàlla ay ñaane yàlla dimbali ma ma fas yéenee yeesal sunnaam su leer si gis nga wax na fa ne lislaam jëpp la yeesal fii ne sunna si la yeesal te mooy lislaam bi ñu ju dëppoog nañ ko na ko yonent bi jàngalee mu waxaat ne ujaddidu tawxida ujaddidu tawxida wal maa tasawufin xawat buruuha damaa fas yéene yeesal tawxid pas-pasi nit ñi ba mu dëppoog mm, na ba mu mel na mu war a mel yeesal yi ñuy jaamoo yàlla ba mu dëppoog na ko yonent bi sallallahu alayhi santaane daa ko defee noona waaye eh, yeesal yoonu tasawuf te muy xam-xam bi nga xam ne moom xam-xam bu kawe la bu am daraja boo xam ne raw na eh, xam-xam yi nga xam ne yépp boolewuñ ko ca kon foofu eh, tudd na fi yeesal tawxiid تبنى سياسة الفقه تبنى سياسة التصوف تنكن يكون التنين كي يعري تنبو أجدد الشريعة المطهرة إنسى مع الحقيقة المنورة دما فسير يسل الشريعة المطهرة الشريعة بوحم دا سل بدرة بجارة خوشة وإذا ما يسل تم حقيقة تموي رفتل charia bo lii rafetal charia boobu ci pas-pas ak i jëf kon nii la wane wootam bi noonu la ko xamle ci biir loolu buñ bëggee xam kon wàccuwaay bi tasawuf am ci biir wooteeb sëriñ bi dañuy bëgg a njëkk xam rek luy tasawuf ci boppam ci tënk tasawuf euh, baat bi wax ji bari ci moom ci boppam mooy lan wax ji bari na ci waaye euh, mënees naa jàpp rek ne tasawuf daal ab léeg-léeg wax ko jublu ci ab xam-xam léeg-léeg wax ko jublu ci jëf ak doxin léeg-léeg ñu wax ko jublu ci melokaan wu nit di mel bu koy fee su boobaa kon ñett yëpp lay boole mu tudd tasawuf xam-xam bi nga xam ne mooy jàngal nit mu muy gëme yàlla gëm yàlla bu wér moom la ñuy tudde xam-xam bi jàngal nit lu muy jaamoo yàlla jaamu yàlla bu wér la ñuy fiq gëm yàlla mooy liimaan jàmm yàlla mooy topp yàlla mooy topp yàlla ci cër mooy lislaam waaye des na beneen xaaj mooy lixsaan te mooy rafetal gëm yàlla bi ak rafetal topp yàlla gi xam-xam bi jàngal nit yoon wi jaar ba ak gëm yàllaam rafet mat sëkk dëgër ak topp yàllaam mat sëkk rafet mat euh, sell xam-xam bi jàngal nit ki muy def ba ba loolu am moo tudd lexsaan kon foofu xam euh, tasawuf xam la bu jàngal nit mu muy def ba yoon wi war a jaar ba tawxiitam rafet ak jaamu yàllaam ay jëfam rafet foofu wax foofa xam-xam foofu tamit xam-xam la fi tudd xam-xam boobu sëriñ bi wax ne moom lay jiwu ne وانتبه وانتبه في أن دين الله أقسام وجيم بالاشتباه أولها الإيمان والإسلام بعدهما الإحسان لا تنام فأول يصح بالتوحيد والثاني بالتفقه الحميد wa sixatu saalisi bi tasawufi fa jam waajibun bila tawaqufi mu ne diine bi ñetti xaaj la gëm yàlla ci sa xol di ko jaamu ci say cër te rafetal gëm gi ak jaamu ga gëm yàlla ci xol nee na balaa wér di koy jàng xam-xam bu ñu yooyee tawxiid mooy bi lay jàngal mooy wéetale yàlla noo ak ya ci aju nee na topp yàlla ci cër jaamu yàlla balaa wér da ngay jàng xam-xam bi ñuy tuddee fiq mooy bi lay xamal atte yi ak lu ci nekk noo ko war a defe ak bu yàqoo noo koy defaree ak atte yi ci aju jëflante yi ca yëpp yi mu ne loolu fiq xam-xam bi koy jàngale mooy fiq mu ne xam nag rafetal mooy tasawuf mu ne kon war a boole xam-xam lañ ko fi tuddee waaye nag buñ ko jaar ci yoon ba yegg ci rafetal googu ba mën a rafetal ba rafetal googu mën a sotti jëf ya maanaam doxin wa jëf yi jëf yi nit ko war a def ba rafetal ba mën a rafetal jëf yooyee lañuy ñuy tuddee tasawuf ba tey kon foofu boobaa foofu tasawuf jëf la fa waaye itam bu nit ki xamee yoon woowu jëfe ko ba am ca lam ca war am ba loola def def jeexit jam war a bàyyi ci xolam bàyyi ko ci cëram bàyyi ko ci jikkoon ak melokaanam ñu mën koo tuddee ak suufi su boobaa melokaan woowee muy xaal dañ koy tuddee ba tey tasawuf kon tasawuf ilmun wa amalun wa xaalun kon loolu mooy xam lek tasawuf tasawuf nag wér la ci diine ci alquran sunna maanaam xam-xam maanaam lu sax la loo xam ne lu bokk ci diine lu ci mënta ñàkk loo xam ne kenn ku xam diine ko mu mënu ko cee génne tegtal bi ci wax rek ci gàttal mooy xadiisu jibril ba xadiis bu gudd boobu nga xam ne ñu bari moo ko mu ñëw ci muslim ba seydina jibril ñëwee yor nit waa koo xam ne euh, wax na mandarga ya nam mel mu ñëw mel ni gan waaye kenn xamul ko fi waaye ñu nit ku ne ci tukki ndax jeexeeti coono tukki nekkul ci moom waaye kenn xamul ko fi mu yóbbu ak ci jant bi sa sallam daal di toog fab ay bëtéeram sosali ko ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fab ay loxoom teg ko ci pooju yonent bi di ko laaj ay laaj laaj ko lan mooy topp yàlla mu wax ko ko mu laaj ko lan mooy gëm yàlla mu wax ko ko mu laaj ko leen mooy rafetal mu wax ko ko mu laaj ko kañ la saa di taxaw mu ne ko tanewuma la ci mu ne lan mooy ay tegtal yoone ne mu ngi bëgg a mu wax ko ko mu daal koy tàggu te fekk na ba laaj nag lépp lu mu bu ko ne bu ko waxee mu ne ko wax nga dëgg gaa ñi toogoon nag ñëpp waaru kii moom mi ngi laaj te su ko waxee mu ne buñ ko tontee mu ne wax nga dëgg man li ñu laaj da koo xamoon ba noppi ba mu jógee bay dem ba mu tàggoo yonent bi sidna Omar nee na yonent bi nañu ndax xam ngeen kii dikkoon di wax ak man ku mu doon ñu ne ko déedéet mu ne mooy Jibril daa dikkoon di leen jàngal seen diine kon diine ji na ko yonent bi ni ko sidna ji jàng euh, laaj yonent mu tontoo ko noona mooy diine bi ñetti xaaj la gëm yàlla ci sab xol di ko topp ci say cër te di ko rafetal nag te rafetal gëm ji ak topp gi mooy lihsaan gëm yàlla googu am na xam-xam bu koy jàngalee mooy liimaan euh, tawxid topp yàlla gi am xam bu jàng fiq rafet ak yow te mën na ñàkk xam-xam bu koy jàngale ak yoon yu jaar bu mën koy jëfee looloo mooy tasawuf kon sax na bu wérawal ci alquran ci sunna te bu saxee ci sunna sax na ci alquran ndax yonent bi lépp yàlla nee nañu wa ma ataykum rasul fa xuzuhu wa ma nahekum anhu fantahu te lépp lu mu wax ci lihsaan ji baatu lihsaan bii mu wax ci xadis bi ñëw na ci alxuraan ay yoon yoon yàlla di tagg eh, ñi ko mel kon lu saxla ci alxuraan ak ci ak ci ak ci ak sunna kon loolu lañ doon wax ci tasawuf mooy lan ak tegtal biñ ci biñ ci sukkandiku ci biiram ci alxuraan ak sunna wàccuwaay bi mu am nag ci wooteeb Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu dañu naan tasawuf am lu am solo lool la ci biir woote sëriñ bi wàccuwaay bi mu ci am ak solo si moo waral ñu dem ba woote bépp ñu def ko tasawuf far woote bépp ñu far ko def woote tasawuf jàpp ne tasawuf rekk la woote li dul tasawuf bokkul ci booteem ba tax na woote bi ñu tudde ko euh, ñi ci nekk ñu tudd leen muridiin di wax tariqatul muridiin loolu fës bi mu fës ci biir wooteem ak firndewu bi ci firndewu ak ñi nekk moom ci boppam moo ñu mu àndal dund bi ñu ko dund mu ba ràññiku ci lool moo waral euh, ñu tudd woote bi dem ba ñu far ko ñu far ko moomalee tasawuf ñi ci nekk far ñu far leen tuddee waa tasawuf kon wàccuwaay bu kawee kawe la am ci biir woote bi waaye nag bu fekkee dañoo dellu nag ci yoonu jàngale rekk nag di wax ci wàllu jàngale dañu naan woote bi du tas du tasawuf kese tasawuf ab xaaj la ci biir woote bi ab xaaj la ci biir woote bi woote bi dafa yeesal maanaam tawxiital yi ci biir fiqan ci biir waaw tasawuf nag door a ñëw mottu li leen euh, sellal leen kon ab xaaj la mooy benn xaaj ba ci ñetti xaaj yi nga xam ne moo moo ëmb mu ëmb woote bi euh, kon lu am wàccuwaay lool la ci biir woote bi ndax moom la jëfandikoo ba def ko mu jumtukaay boo xam ne ci la jaar ba lim sottal mu sottal ko ci kàttanu yàlla ak ndimbalam bu ñëwee nag ci xolub waxtaan wi dañ koy séddale ñetti xaaj bi ma ko waxee woon xaaj bi njëkk mooy tasawuf bii ñu wax nii nan la ñëwee ci mbindum sëriñ bi sëriñ bi dafa wane tasawuf ñetti yoon da ko wane ci mbir bi wane ko ci jëfi boppam jëfloo ko ay nit maanaam yar ci ay nit tàggat leen ci bañ jëmmal ko moo tax bu ñu bëggee xam tasawuf tasawuf sëñ bi foog faaw ñu xool ko ci ñetti ñetti barab yépp dañ ko xool ci mbind mi xool ko ci jëfi boppam ji xool ko ci melaw taalibeem yi bu dee ci mbindam mbindum sëriñ bi dafa yaatu lool lool te bari néewaa na ci taarix ku bind lu bare ni mu bind gën a bind yaatoo ni mu yaatoo kon taalif ci sëriñ bi dafa yaatu lool bari ay fànn euh, kon lépp lu sëriñ bind rek ci ay moom ay taalifam la am na loo xam ne nag way la am ci lu nekk yasar am ci lu jëm ci jàngale xam-xam xam-xamu tawxiid am lu jëm ci jàngale xam-xamu fiq am lu jëm ci jàngale xam-xamu tasawuf am lu jëm ci déeyaaleeg boroomam wéetal ko ak jaamu ko am lu jëm ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ak di di ko ñaanal ci ay taalif mooy di julli ci moom am lu jëm ci ay ndénkaan yu ñuy dénk euh, mbooloom jullit mi mbooloom taalibe yi ak ay benn benn yi soxla ci moom ay ndénkaan ak ay tontu yoo xam ne ko tontu ay laaj yu ñu ko daa laaj ci diine ak ay bataaxel yu mu daa bindantee ki nit euh, xam-xam di ca feeñ euh, ak ak ak ak njub yooyu yëpp kon bu ñu ko boolee mooy ay ay taalifam bu ko defee nag bu ñëwee nag kon wàllu tasawuf kon ak ab ak wàll la ak wàll la ci biiri taalifam moo xam ne dafay ñu xool kon tasawuf ci biir taalifi sëriñ bi tasawuf ci biir taarif sëriñ bi mën nañ ne mën nañ koo gis ci ñetti anam anam bu jëkk bi mooy dafa gaaral tasawuf maanaam daa indi tasawuf bépp bi nga xam ne mooy tasawuf bi dëppoo ak xam ngeen ne ci islam ji xaajal islam yépp xaaj bu ci nekk am na ca mbooloo moo xam ne dañoo góorgóorlu jéem a tënku ci na ko yent bi jàngale woon ci wàllu tawxiid am na tawxiidu ahlu sunna bu dee ci fiq am na njëri ahlu sunna bu dee ci tasawuf am na tasawufu ahlu sunna sëy bi li nga xamee ne ci wàllu pas-pas ci wàllu tawxiid ci njëriñ waa sunna la nekk te ci moom la jàngale ci la woote ci wàllu fiq ci benn ngir ci ngëriñ waa sunna muy ngëriñ ma Malik ci la tënk ci la tënkuloo taalibe yi naka noonu ci tasawuf itam ci benn ci menn ngir ci ngëriñ tasawuf yi muy ngëriñ Junayd ndax am na yeneen ngir itam nag ci tasawuf ci yoo xam ne dëppoon ak sunna ngëri sunna ngëri tasawuf ci sunna yoo xam ne bokkut ak bu Junayd am na itam nag ni mu amee ci fiq noonu amee ci tasawuf waaye tasawuf sunna bi nga xam ne nag ci la sëriñ bi taalif li ci mu taalif yar ci lépp ñu mooy tasawuf bi nga xam ne ña ngay dellu ñoom ci Junayd imaam Junayd euh, tasawuf boobu jàngale na ko kon ci ñetti fànn bu njëkk bi na ko ca nam gën a na ko ca nam gën a nga xam tasawuf bépp la jàngale rek xalaat ci nekk wuute gi am ci biir boroom xam-xam yi lépp mu indi ko rek te waxula ci nag taxawaayam dalaa indi lépp rek waaw bu dee ponk yi dañ cee wuute ñii dañ naan ponk te su mooy nangam ak nangam nangam keneen dikk ne déedéet ponk yi nangam ak nangam la keneen ne déedéet yi nangam ak nangam la ñii ne usul nangam ak nangam ñii yi xawaay bi li mel noonu lu ci nekk ay wuute yu bari da ca am moom nag indi na la lu bare la te yaatu ci biir xam-xam boobu nga xam daa daa indi tasawuf rek ci tasawuf boobu nga xam ne moom mooy tasawuf ahlu masab euh, junayd tariqa junayd ci tasawuf te koy jàngale ci nam ci nam gën a yaatoo ak xalaat ya la muy nam na xalaat yi gën a bare gën naa wute indee na ko noona loola da ko fekk ci yenn taalifam yi lu mel ni ki maxaaliku niiraan lu mel ni ki munawir lu mel ni ki jawaabu euh, sëriñ pakala euh, ak yeneen ak yeneen da ca indi tasaw boo xam ne wax yu wute ak xalaat yu wute ak gisin yu wute la ca dajale te indi te nag moom at da ko indi noonu rek bàyyi la yow nga xool kon andee na ko noonu ci biir taalifam nga xam ne booy gis kon rek bu bëgg yaatal bëgg a bëgg bëgg dajal andil na la madda bi andil na la ko nga fekk ko ci biir téere mën koo jàng door a xool na yow sa taxawaayu bopp ak sa débit bopp ak noo cay def noonu la ko njëkk indee dellu ko indiwaat tënk ko tënk tasawuf nga xam ne daal wute yooyu yëpp maanaam ñi jàngale tasawuf yëpp nag li nga xam ne moom bu doon tënk ñoom yëpp daje ca nga xam mooy xulaasa ba tënku tasawuf te ën na ko moom itam tënku ko ci benn téere muy Masaalikul Jinaan nga xam tasawuf sunni bi sukkandiku tariixa Junayd andi na ko ci Masaalikul naan tënku ko nag nga xam ne boo ko jàngee mel nga ni tasawuf booba yépp xam nga ko dajal nga ko moo tax muy wax ci mujj naan قد احتوى تسية القلوب وما آه، أتى إذ فيه ما من حكم التصوف يكاد يغني عن جميع صحف من تير بيج مسائل جنان لكن خم خم التصوف بوكو تاجي خونا داي با دي جانغي جانغار يينن تير نخ آه، تنكنكو لولا وقت مجي كي جالبن جمعيني جناب بمخي تصوف وجدته قد صنف الأخبار فيه دفاتر لها أسرار شكرنا برم خمسة نتائج benn ñaareel ba moo mu ne da nga fexe nag ba not sa bakkan maanaam not loolu yaa ngi koy defe ci jihaadu nafsi not sa bakkan ci ngay mën a amee sit ku tawajjuh ilallah mën a mucc ci gàllankoor yi dox sa digganteeg jaamu yàlla ñaareel ba mooy dangay laabal sab xol da ngay laabal sab xol génn ci lépp luy ab safaan laabal say cër teqale ko lépp lu di ak mooy defar say jiko génn ci lépp luy jiko ju ñaaw muy ñaar ñetteel ba nag mooy da ngay melok da ngay def ci sa jëmmi melokaan yu baax yépp ak tegin yu rafet yépp ak lépp lu di mat nga def ko ci sa bopp moo tax téeral mu def ko ñetti bunt bunt bu ñett bi nooy def ba mucc ci gàllankoor yi bindee fi bu ñaareel bi nooy def ba sellal sa xol mucc ci bon bon yi ñetteel bi nooy def ba melokaan yu baax yépp nekk ci yow foofa kon tënk na fa yoonu tarbiya waaye am na feneen foo xam ne jëf ji jëf ji la fa tënk maanaam boo jógoon ginnaaw li mooy xam-xam bi li ma wax nii mooy xam-xam bi yoon wi wa yoon ñu rëdd nii rek ci kaw këyit bi nga xam ne da nga jaar ci jaar ci ba àgg fële waaye bu dee loolu nooy jaar ci kaw yoon wi nag loolu ñu tuddee sóobu muy sunóob wala ñu tuddee tënkaat moom ci beneen téere mooy ci xuqa tënk ku jóg bëgg a dem ca yàlla àgg ca moom fooy jaar nooy def yan jëf nga war a def loola jàngale na ko ak boo àggee ca yàlla nooy mel kon loolu tënk na ko ci beneen téere muy xuqa nga gis ne te tasawuf moom ñëw na kon ci ay taalifam ci anamam yépp ca nam gën a leere ca nam gën a mate waaye lii nag lu ñëpp bokk la di xam-xam bu yaatu boo xam ne ku bëgg a jëfee tasawuf ak foo mën a dëkk ak jamono joo mën a nekk danga nga ko yittewoo waaye moom ci boppam nag daa nekkoon ci jamono nekk ci barab di jàng barab ba mu nekk jamono yu am jafe-jafe yi boppam mu war a fab tasawuf jëfandikoo ko ci jamono joojee ca barab boobee ca waa barab boobee loola tax na mu am nu mu jëmmale tasawuf noo xam ne du rek lu ñu sottee ci téere tari noonu rek waaye euh, am xelam xelum boppam akum ñawam akum déggam ak mayu yàlla bu ko yàlla may euh, feeñ na ci ñim jëmmale tasawuf ci jamono ji mu dikkee ak yooyu ni mu ñëwee jafe ak jafe-jafem ak ñi nit ñi mu war a àndal ak seeni melokaan jëmmal na ko ci ñoom moo tax du jooyoo rek li euh, mu tëree ci téere yi bu foofu boo fi yemee ah doo mën a wax ni lii mooy tasawuf sëriñ bi ci liñ ñëwee kon ci tomb ñaareel bi mooy tasawuf ci boppam ni ko sëñ bi dundee moom ci boppam laa wax nag ni ko dundee moom ci jëmmam lu mu ko jëmmale moom ci ci ci doxinu boppam sëriñ bi ni ko Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Cheikh al nee na yàlla da ko bind ngir boppam yàlla da ko bind ngir boppam xuliqa rabbaniyan daa jóge ci yàlla doxaat del ngir demaat ca yàlla daa jóge ci yàlla jëmaat ca moom fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka maanaam daa ñëwaale ba muy dikk ca yàlla la bàyyi ko maanaam bëgg yàlla ak sopp ko ak mu gënee ko lu mu moom loolu da koo indaale kon ci yàlla la jógee mooy xumt majzuban ilayka minka minka xumt majzuban minka maa ngi ñëw jóge ci yow nga di ma ñëw di jëmewaat ci sa bopp loolu moo waraloon ba muy door jóg rek ci ci njëlbéenam fu gën a jege yàlla rek fa lay nekk daawul tëdd ci kaw lalu waajuram bu jigéen te jullikaay ba lay fanaan ndax fa ñu jullee ci néeg bi booyee néeg bi barab bu gën a jege yàlla ci néeg mooy fa ñu jullee ñu gën a jege yàlla lay àndal mooy boroom xam-xam ni ak nit ñu baax ni ñu gën a ku ku bañ yàlla maa nga di ko mooy dalay bañ sori la moo tax ba mu ci njëlbeenam ba nga xam fi dem nañ ko faa yóbbu ci saayar daawul nangu kenn ànd ak moom di jaar fu ñuy mooyee yàlla mbaa fu ñuy fooyee saa bu jegee ku ñuy fa mooy yàlla rek dana am nu ñu def ba faw ñu dëpp ak moom faw la ñuy dëpp ak moom duñu àggal duñu dem fa ñu mooy yàlla baa fa ñuy te loolu booba ñu toll ci fu ñu jëm ñu ko fa jëme kon loolu lu mu indaale la kon ca yàlla la jógee ah, daal wax na ne ba ma xàmmee laa def xam yàlla muy sama yitte walam azal منذ أقلت طالبا معرفة بالله جل تائبا kon bëgg yàlla maanaam bëgg yàlla ak bëgg koo xam ak bëgg yàgg ca moom ak bëgg dëkk ak moom loolu day nuñ ko moo ñaale nga xam ba mu xàmmee rekk la tàmbalee dox ci yoon koy yeggale foofee mu ne nag sonn naa ci nag lool nag moom ci loolu ngir ma àgg ngir ma xam yàlla moom li nga xam ne moom laa bëgg lool bëgg àgg ca moom bëgg dëkk ak moom sonn naa nag lool ci lu ko yaata am fa jultu bayna al ulama wal awliya kay laa yabia fa fa jultu bayna al ulama fa jultu bayna al ulama wal awliya di waxee jeexatul làmmiñ dikka yaaya bi amri ataba yi lan qala des saba fi jitu bayan ulama loolu yaa bi niyyati wa amali wa qawli yaa فجلت بين علماء ولولياء بعملي بنية وعملي وقولي كي لا يبيع عمري أتعبا لحسن ظني قاد الاحتسابا بما جوغي الله ku ma yaakaar ne yaa ma ci tane rek dem naa ci yow ne ma dimbali ma ci alxuraan bi nga xam ne moo jógee ci yàlla ñu koy jàng ca la tàmbalee jàng ko ba mën ko lool xam-xam bi nga xam ne moom la yàlla ci ñuy yàlla ci xamee ñuy jaamoo yàlla ak ñuy joxe jëm ci yàlla mu jàng xam-xam boobu ci ña koy jàngale ñey wommate jëme ci yàlla ñu leen naan ay kilifa ay ay tasawuf mu wër leen boroom xam-xam yi ak nit yàlla yi ku mu dégg dem ca yow jaxasoo yow settantal la lu mën a jëriñoo ci yow mu jëriñoo ko ci yow fu mu fekk téere bu ko war a mën a yokk ak xam mu fexe ba jot ca téere boobee nekk ca loola nekk ca loola di gëstu yoonu yoonu di di làmb yoon yu koy dëgg dëgg yoon yu ko mën a yóbbu ci yàlla mu nekk ci di ko làmbtu làmbatu la ko tuddee de làmbatu nee nekk na ne ci loolu xataa wasaltu ama ay sasin ila xidmati xayril xalqi kon ba mu jógee ci njëlbeenam la tàmbali képp ku mu jàpp ne yaa ko tane ci xamal ko yàlla maay gën ko ko womat ko ci mu jaar ci yow muy ngay boroom xam-xam muy ngay boroom mukk wilaaya baa ngay boroom téere mbaa ngay leneen nee nag ma nekk ca loola ku ma dem rek la may fekk ca moom du ma mën a màndi du ma du màndal sama mar ma dem a dem a dem ba naanukaay yëpp ma dem tam maanaam dajal téere yi dajal boroom xam-xam yi dajal nit yàlla yi mën a dajal waaye fu mu ca dem rek du gis du am lu màndal aw maram loolu ba yàlla nag ne ko ginnaaw ñi nga sonne nag ci bëgg maa xam bëgg a yegg ci man kaay ma dimbali la nag ndax sonn nga kat kaay ma tegtal la koo xam ne boo demee ca moom moom dana la jàpp dana jàpp ci sa ba indi la ci man lu saw mar rëy rëy rëy dana la màndal ci géejam kooku mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lay waxe ne hadani ilahi بعدما كدت هالكا بجاه الذي قد زين العدم والعربى xawna ma alkut ci yoon wi ndax dem naa ba tegtal yi ma amul yépp jeex na yoon wi des ci sama kanam fa ma bëgg àgg àgg bu fa te xamatuma lu may tegtaloo amatul ko woomat ma nar a foofu nag la ma yàlla gindee jàpp ci sama loxo dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun bi samadi loolu nee na mu ngi ko def ci ama ay sasin atum junne ñoo si demee fukk ak benn nga xam ne kon ba mu gënee àdduna ba mu xam ne daal ba ay ba ay sasin ba ay sasin jooju noonu diggante boobu yépp ci nu muy def ba xam yoon wi nu muy def ba am ku ko mën a wommat wommat ba mu bëgg ci la nekkoon waaw waaye ma ak ba mu ne ba ko yoon si waxee loolu nag yàlla waxee loolu nag ci la jaayante yoon si sallallahu alayhi wa ko boppam man ginnaaw wér di yi yi nekkoon sëriñ si jàppoon téere yi mu yoroon lépp mu bàyyi ko doyloo alquran ak sunna di jàng alquran ak xadis lépp lu ñuy jëfe ci alquran lay dellu ci xadis lay dellu waaye itam bu dee ci ku koy wommat nekk koo xam ne mooy doon royukaayam nekk sëriñam bu koy tarbiya mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu jaayante moom ubaayi ne ubaayi al yawma ala axdi alkitab bi xidmati bi mustafa babi sawab wa ahidu llah ala ahli alkitab bi xidmatin li Mustafa Babi Sow maa ngi fasante yàlla kóllëre ne fas naa yéene jël alquraanu karim doyloo ko jàpp ci suñu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di ko liggéeyal waxaat ne ubaayi'u yawma rasuula Mustafa bi xidmatin wa as'alullaha alwafa loolu nag mooy siifoog ñaareel bi ci doxam ba mu xam ne ba ba ci at mi mooy siifoog bu njëkk bi mooy siifoog bi nga xam ne am na ñu doon doxale ci diggante ne yonent bi yonent bi la def muy wasilaam waaye am na nag ay ay ay digale ay ñu doxale ci diggante bi ñoo xam doxale na diggante bi euh, ñu dox diggante bi yonent bi waaye fii nag la bàyyee dox ñooñu ci diggante bi yépp jàpp ci yonent bi nag jàpp boo xam ne kenn doxul ci diggante bi booba nag la ko yonent bi wommat nag muy sukkandikoo alquran kitaabun bihi masaktu مستغنيا به غريبا وأمثال المصيبات والكعبة به زال غني حين أمسكته هدى آه، سأهدي به نفسي وأهدي به الصحبة بما جري القرآن لا جل من باي لوكو باي تيري جيس يب تاريخ يب ويب يب باي جري يب بسر بسكم ونكتم ويسر باي جيس يب وباي يوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاق mu ne bu ma jëlee alxuraan nag ci laa tàggaloo tàgg tàggoog njàqare kon alxuraan ji laay doyloo ak sunna ci laay tegtaloo ci sama yoon ci laay womante ñi may àndal yonent bi it laa def muy sama te moom laay liggéeyal foofu nag la yonent bi jàppe ci loxoom di ko tarbiyaal boppam alxuraan nekk wirdam yonent bi nekk wasilaam mu sax ci jàng alxuraan sax ci tagg yonent bi ak julli ci moom ak di jihaar ak bakkanam tumuranke génn réew mi ñu génn ko mu dem Gabon am fa juróom ñetti at tuuti ba àgg fa mu bëggoon a àgg nag ci yàlla ci xam yàlla daal wax ne nag lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana am maa juru galwa waaw ca làmbare ne fa nga xam ne ñu fa toll ne fa nekk ay galwa la ñu leen tuddee nee na foofee nag ci seen biir nag foofa nag la àgg ci yàlla ginnaaw bu mu amee juróomi juróomi at ca Mayomba ba dem Galwa na booba nag kon loolu mooy siifam ñaar bi mooy ci ñu doxee nag ba àgg dox nag ci dox lii moom bëggoon a àndal ci mooy siifam ñaareelam siifam ñetteelam gannaaw ba mu àggee ca yàlla ba noppi ba nu ñu dikk dikkee Tuubaa gi dëkkaat fay boroomam mooy siifu yooyu moom mooy siifu dëkkaale ba mu àggee ci yàlla nag dafa toog del siwaatul de del siwaatul fam nekkoon nekk ca nekkoon dafa toog daa dëkk ci yàlla dafa sax def jiwaar euh, loolu lay wax ne euh, jaawatullaaha bi kitaabihi إلى دخول جنته جاوبت بالفرقان ربي المعين ملك نفسي وزاح تحت اللعين أبي وحني آه، جاوبت ربي بلسان عربي بلا نهاية كون بما أدرك يا الله دفعت سخفة كجي كسر كفا مرحمة يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر bépp wàllu képp nitu yàlla kuy njëkkante jëm ci yàlla jëm jëm ci aljanna boo dikkee man fa yàlla nga may fekk falaa loolu mooy ginnaaw ba mu fa àggee dafa sax maanaam melokaan moom ak la mu doon def ba àgg ci yàlla daa sax ca loola dëkkaale yàlla ci jàng alquran sax ci liimaan ak lislaam ak lihsaan nga xam ne la mu doon def soppiwu ca dara yaquudu nii li jannati l islaamu wa axawaahu dahra la ulaamu maanaam ba ba muy dem aljanna ci ñett yi laay sax ci liimaan ak lislaam ak lihsaan raafaqani ila jinaani jiimu way siwaay zuftiha rajimu yaquduni qawla alkiraami diimu way siwaa naxwin taha rajimu kon loolu mooy siifu ñetteelam kon nii la dunde moom tasawuf nga xam ne ni yoon tasawuf bi nga xam ne moom mi daa yu baax yi rëdd nga ci xam teg jëf teg nag tarbiya teg tarfiya bàgg ci tasfiya yoon woowe nag la jaar ci anam bii ma wax jaare ca noonu bàgg ci yàlla jéggi maqamaatu yaqin bàgg ci yàlla ak gin woo xam ne euh, euh, aw ak gin la wu wu dem dayo bu mëneesu la xalam kon loolu ma tomb boobu yi aju ci lu mu bindee tasawuf ku bëgg xam nan la bindee tasawuf nan la jaare ci maqaamaatul yaqin ba àgg boo jàngee minanul baaqil qadim fi siyati cheikh al xadim di cheikh Mouhamadul Bachir ibn cheikh al xadim radiyallahu anhu ko ca fekk loola aw jaarin la woo xam ne day gudd dee su ko mën a ci jotaay bu demee nii tomb ñetteel bi mooy nan la dundale nan la tasawuf jëmmoo ci doxinu taalibe yi mu yar maanaam nan la jëmmalee tasawuf ci biir ay taalibeem ni mu yare ni mu yare taalibe yi ci tasawuf taalibe yi te muy mag ñi àndoon ak sëriñ bi jébbal ko seen bopp ànd bàyyee ko ko mu wommat leen ba yeggale leen fa ñu yegg ñooñee euh, dañoo jëmmal lislaam dañoo jëmmal liimaan jëmmal lislaam jëmmal lixsaan euh, tasawuf bii nga xam ne mooy mooy taxa am lixsaan ñoom dañ ko jëmmal ndax sëriñ bi ba mu yëkkatee woote fisal ko dafa wane ne moom kat ci yoon gaa yu baax la fas yéenee dox ku ku bëgg ànd ak moom kaay dikk jaayante moom ci ne da ngeen ànd ca loola ña ko ñëkk topp te mooy ñoo nekkoon ca daara Maamur Ansawi doon jànganoog moom euh, ak ña nga xam ne moom dañoo jikkoon leen jàngal ñooñu yépp ñu ci ëpp ñenn ñenn ña ñoo ñenn ci ñoom ñoo li ko jaayante moom te ko dañuy ànd ak ci woowu yoon mu tàmbali nag dox mu ànd parce que ànd ak ñoom def lañ ca man la muy tegoo mu leen ñu ànd kon di dox ci doxinu tasawuf jaayante moom ci bàyyi àdduna bàyyi àdduna xam dañuy dog àdduna ak la ci biiram bàyyi seeni aada ak seeni cosaan ak lañ xamoon ak lañ miinoon ak la seen bakkan miinoon lépp ñu bàyyi ko mel ni ñu judd judd bu bees nekk ci dox yu bu bokkut ak lañ nekkoon bu jëkk jëbbal seen bopp bàyyee ko ko mu mu dox ak ñoom ca doxin woowee mu mu nga xam la ñoom bu dee ñooñee moom fekk ñu jàng ñoom ba noppi ñu njëkk ñu njëkk jëblu moom wàllu euh, yoonu njëkk yi li jéego bi njëkk bi te jàng def nañ ko tënku ci diine it taxaw ci farata yi bàyyi bàyyi ak di farlu ci ñuy sopp yi ak bàyyi xaraam yi ak lu mën ci ñu sit loolu moom ña nga ca woon kon lam lam fam tàmbalee ñoom nag mooy kon di leen tarbiya maanaam di leen tarbiya ci riyaada mooy not bakkan ñu ànd di xiif xiif bu mettee metti nga xam ne waxtu ba waxtu del si benn yoon lañ ciy mos aw ñam te mos lay doon tuuti la mos rek ci aw ñam mos tuuti ci ndox ba waxtu ba dellu siwaat ndax xiif boobu la wax ne mooy not bakkan waaye ber ñu génn ci nit ñi ak yàqub jamono ak jaxasoo nit ñi ak seeni aada seen tax mu génne leen ca ñooña yóbbu leen ci barab boo xam ne moom ñoom rek ka fay nekk muy daru ñu sax nag ci jaamu yàlla ci julli ak woor ak joxe asaka def lu baax lépp waaye sax saxit ci farlu ci jëf yi soppi yi waaye nag saxoo taqoo laab taqoo tudd yàlla taqoo liggéey sax ci ñàkk dëkk ci ñàkk nelaw ñu dul lu mënta ñàkk nga xam ne kon lam waxoon ca xuqa arkaanu bayti jamil qawmi arbaatun biha yu assasu bunyaanu wilayaati sumtun wa juwon tawilun baadahu saharun wa usbatun an fiixu bi isharaati ci ci ci yoon woowu dëgg-dëgg tasawufoon muy ponk yooyu nga xam ne waatu yëpp dëppoo nañ ci ne lii moom kenn wutewu ci ku bëgg a def tasaw moom faaw nga def lii mu tënk leen kon ci woowu yoon euh, xëy na nag dolli ca loo xam ne barabam a ko laaj ak jamonoom ak i nitam waaw euh, kon noonu la àndeek ñoom ba yeggale leen fa fu kawe kawe ci daraja yi nga xam ne fa la nit yàlla yi di yegg ba moom ci boppam mu tudde leen ay aqtaab ñoom ñoo ñee ñu tudd ñu tudd ay aqtaab te mooy koo xam ne kilifa gu mag nga goo xam ne mën ngaa jiite aw yoon ci tasawuf mën ngaa sosu yoon ci tasawuf womat ci aw nit ba ñu am lañu ñu bëgg nee na ñoom taalibeem yooyu nee na bari na ci ñoo xam ne ay aqtaab lañ ajaabani xayru baaqin tiihi qattaaba kulli bi ma li qaada aqtaaba li ma li ma yàlla may ci fayd di ko yàlla may ne ci ci ci baatin buy akub leer bu mën a yeddale nit ci yàlla nee na tartiye na ci yéege na ci ay nit bañ ay xutbu تدين لنا أي أقمار يعني حياته تطلب الأقمار لمن بها تعلق أقمار أقمار من أيار يار يار بك وخلال يجب بك قد ما يبرم جمعه تدين أن أي لأن قال أنجاب يفوزون بالمنى ومن عاقل عن شكر مولاي أسبابه kon ñooñu àgg nañ fu kawe kawe ci jëmmal tasawuf ci ci jëf ak ci melokaan ak ci xam ci xam ci xam yàlla ak jege ko ak ak sopp ko mu jaral la moo tax ñu ragal yàlla lañu woon ñu sàmm lañu woon ñu farlu ci jaamu yàlla lañu ñu dëggu àdduna lañu woon ñu tabe lañu woon ñu woyof lañu woon ñoo xam ne yàlla yonent bi leen gënaloon ak sëriñ bi lépp lépp lu ñoom lañu woon nga xam ne kon lépp luy melokaanu baax woo xam ne tasawuf yittey tasawuf mooy def ko ci nit boo daan daa nga ko fekk ci ñoom ginnaaw bi sëñ bi jaare ñoom fi mu jaare ñoom bu ko defee sëriñ Moussa Ka rahimahullah mi ngi wax mi ngi leen séddale ay xaaj mooy mbooloo ma àndoon mbooloom sëriñ bi séddale na ñetti xaaj nee na tarbiya lay yarey goneem tarqiya mag mi dee ne fi moom tasfiya bëri yi dee fi yéem kenn moom amul ci xarnu bi maanaam ñuy door a jóg mbooloom sëñ bi ña sëñ bi am ña ña cay doon jóg nga xam ñoom ñooy doonay wa ñooy doonay mbooloo ma mooy ñun tarbiya nga xam tarbiya nañ leen defal leen taxliya defal leen taxliya waaw ñoo ñaay doona ya nañu defal tar tarbiya defal tar ñu defal taxliya ak taxliya ñoo ñaay doona ya ñun tarqiya bañ doon xutbu ñoo bañ bañ bañ aw ci yoonu doon bañ bokk doon ay labraar ñooy mag ña ña àgg ci doon ay aqtaab nag ñooy ñooy dëriya kon tasawuf jëmmal na ko moom sëñ bi ci biir ay taalibeem léegi nag bu bëggee tënk tasawufu sëriñ bi boo da xam dañuy boole ñett yëpp dañuy boole yëm bind ak ñu jëmbale mbind mi ndax itam nag bind rek fab la bind lépp rek sotti ko tari noonu rek dafa daa jël mbind ma am ca am ca taxawaay am cay dégg xool jamonoom xool aw nitam xool barabam euh, jëfandikoo ko ci barab ba jamono jaag nit ña ba def ci lu def kon bu wax tasawuf sëñ bi dañuy boole ñett yépp bind nit ak jëfi boppam bi ak lu mu ko jëmmale ci taalibe yi loolu nag bu ñu ko bëggee tënk rek dañu naan tasawuf bi dafa am laltaay fu mu sukkandiku nga xam ne kenn mënta wax tasawuf sëriñ bi te waxoo ñett yooyu mooy liimaan ak lislaam ak lihsaan loolu mooy usus mooy cosaan yi nga xam ne ci lañu taxawal de tabax bi tabax tabax day am laltaay bi ñuy taxawale tabax ta taxa laltaayu tabaxam nag moom mooy ñett yi liimaan mooy gëm yàlla bu dëppoog sunna nga xam ne da ngay bokk ci aqidatu da ngay tënk ci aqidatu ahli sunna wal jamaa yow li ñu doon tasoo boo xam ne ki ciy bokk ki koy dund fa mu njëkk a mooy day jëkk jàng xam-xam day jëkk jàng xam-xam xam xaaju diine yépp jàng tawxid jàng fiq jàng tasawuf loolu lay jëkkee waaye nag da koy day tënk ci mazhabu al sunna wal jamaa ci wàllu pas-pas wa yaala man kulli zakiyin wa barit أن الذي يخالف الحق طريق والحق بدء العبد بالتوحيد والفقه عن تصوف المجيد منتهيا مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنة أما أنا فهم إذا ابتدى المريد بالتوحيد والفقه والتصوف المجيد منتهيا ما فبعد مع جماعة نجا من فتنة من الجيد بجد والمعيك دغي جانغ خم خم نيتي خم خم يي إيه؟ دغي دن يالا دن يالا بو تك جانغ توحيد بدبوك سنة دي توب يالله nanggo topp yàlla nangoo jaamu yàlla ci say cër ginnaaw bi mu gën a ci xol da ngay nanggo jamu yale ci say cër jaamu yàlla goo xam ne koy dëppaleeg na ko yonent bi jàngale woon sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag soobu mbirum tasawuf ta jaar ci tasawuf ba nga xamne mom la waa sunna nangu te di ko jëfe mu ne kon usu tariqati al iman bi tawhid والإسلام بالفقه والإحسان بتصوف كيف كو خام داك لي نغم يالا نيتو يالا اك لا تي اديو كوكو داك ماغا سوخال كو يو جيمالو تصوف سيرين بي توب يالا تي تير كوكو سوي ماغا تي جيمالو تصوف سيرين بي واي تام ليم خول دافار خول اك دافار جيكو اك نوت بكان اك لا ci faañ tasawuf ku ko neenal jëmmaloo tasawuf sëñ bi kon liimaan ak lislaam ak lihsaan loolu moom mooy laaj bi kun muminan wa musliman wa muxsina indimta sayran lillahi tuxsina su fekkee da nga bëgg a dox jëm ci yàlla doxin mu ci ayib fexeel ba gën a góorgóorlu ci di gën gën di gën a yokku sa rafetal ñaar yooyu di gën a euh, yokku yaa mutaalliquuna kuunu muminin wa muslimina taatan wa muhsinin yéen ñi ma topp ñépp digal naa leen na ngeen sax ci bi gëm yàlla gëm yàlla bu sell bu dëppoog na ko yonent bi jàngalee woon tey farlu ci topp yàlla ci seeni cër di topp liggéey bàyyi tere yi te ci diine waaye na ngeen rafetal di jëfe li sa kon loolu mooy laltaay bi nga xam ne ci la sa soof sëñ bi euh, laltaayu moom faaw lii maanaam lislaam ak islam ngay jiital tey da koy xam di ko jëfe da ngay fas li war a fas da xam li ñu war a xam li fas da koy xam ba noppi fas ko li ñu war a jëf koy xam ba noppi di ko jëfee kem kàttan waaye ñu war a mel ñu war a mel ci rafetal ngëm ak rafetal ak topp da koy xam ba noppi jëm jëfe ko kon loolu mooy cosaan yi usus yi daa am ay kon ay keno loo xam ne moo taxawal moo yam njàngaleen sëñ bi ci tasawuf mooy ñetti yëf la mooy al ilmu naafi wal amalu saalix wal adab al mardi mooy tasawuf sëñ bi ñett yi mu ngi cay ñàkk bi ci njëkk mooy xam-xam bu am njariñ jàng moom sàkku xam-xam da cee nekk lu mënta ñàkk moom nee moo war a jëkk moo war a jiitu awalu waajibin al muridi tahsil zaadihi min tawxiid ak lam ca teg ba mu jeex kon jàng jiitu moom xam-xam bu am njariñ nag la wax xam-xam bu am njariñ mooy bépp xam-xam jàng ngir yàlla xam-xam bu amul boo xam jànguñ ko ngir yàlla xam-xamu diine buñ jàng ngir yàlla xam-xam bu am njariñ la xam-xamu diine buñ jàng te yàlla taxut ku ki koy jàng àdduna da ci ak daraja ak alal loola xam-xam bu amul njëriñ ci njàngaleem sëriñ bi xam-xam àdduna bu ñu sàkku yu am na xam-xam bu ñu sàkku yu àdduna kese amul njëriñ kon loolu mooy dégg xam la am doon xam-xam diine yi ak xam-xam yi ñu yéene àdduna waaye lu ci mën doon nañ ko sukkandikoo ci sàkku ngërëmu yàlla ak sàkku teyaabay ëllëg ak sàkku yéenal diine te bañ caa jublu àdduna yi kese kon mooy àll mun naa feex jëf bu baax tasawuf tamit daal laa mooy jëf tasawuf dañuy jëf moom da jëf euh, jëf danañ koy danañ ci ñëwaat ci kanam tuuti bu ñëwee ci euh, li ràññale li ko li ko li gën a jagoo ay ay jagleem ñu koy xame ñetteel ba ci cosaan yi ci ci keno yi mooy al adabul mardi mooy melo wu ñu gërëm melo wu ñu gërëm mooy ku ñu ku ñu defar ba nga baax na nga na a mel loolu ñu tudd al adabul mardi làmboo na xol bu laab xol bu laab xol bu sell boo xam borom du iñaan bu rëy du ñistal du soxor du bon du ñàkk yërmande eh, du jiital yàlla boppam ci yàlla yi lépp loo xam ne rek lu lu bon bon la yi ne ci xol da nga cay mucc ñu mën a gërëm soo meloon kon sa laa daa ci am loo xam xola ko moom ba melo yu gërëm yëpp tibbee bu muccee ci melo yu sikk yëpp day làmboo melo yu gërëm yëpp moom xol bi am na ci loo xam ne cër yee ko moom melo yu gërëm am ci loo xam cër yee ko moom mooy cër yi aw a gërëm mooy cër bi tere jëf lee lay te defit amul njariñ kon te ci bi melo yu gërëm laa mënaloo mooy cër bi yu dikki balaa mel ni li ñu jël dañoo cër yoo xam ne day topp yàlla du def te du mooy yàlla te du def it lu mu njëriñ waaye melo yu ñu jël nit jikko yu rafet ak teggin yu rafet kon bu ñu melo doon jël lépp dugg na ci biir xol bu rafet jëf yu rafet ak jikko yu rafet ak teggin yu rafet maanaam pas-pas bu rafet ak jëf yu rafet lépp lu rafet rek waaw sa lépp rafet daal loolu mooy melawoon gërëm te loolu nag ñu koy jaare ci yoonu ci yoonu tarbiya tarbiya nit ki ba ba mën a àgg foofu kon ci ñett yi mooy cosaan yi moo tax mu ne man talaba alwusula lil jalili fa yaatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian laa yamin fi zahirin wa batinin an sabil yaquuduhu bil ilmi wal ibaada kama yurabbihi bi tarki al aada ku bëgg jaar ci yoonu tasawuf ba àgg ci yàlla dangay ngay topp da ngay ci sunnas yonent bi sallallahu la yàlla yónni mu rëdd yoon wa jëm ci yàlla jaar ca jaarale ci nit ña kon ku bëgg jëm ci yoon ci yàlla mënoo teg yoon yonent bi ko ko teg boo ko tegee boo ko tegee doo dem kon da ngay tënk ci suñu sens bi la ci gën a gàtt nag gën laa noppal mooy nga fekk kilifa goo xam ne teg na tànkam ci yoon woowee ci biir ak ci bitti nga ànd ak moom bàyyee sa bopp di roy ci moom bu ko fekk kookee nag di jaaral ci yoon walay àggee ci yàlla ci ñett yëf yi lay jëflante yow te xamal lépp loo war a xam ci xam-xam bu am njëriñ tàggat la ci lépp loo war a jëf ci lu baax defar la ba nga mel ñëpp noo war a mel ci melokaanu ñu gërëm kon ñett yi moom mooy keno yi tasawuf sëñ bi kenn mënu ci génne ñett yi ndax ñooy keno yi ñu keno mel ci tabax noonu la bi moo tax mu ne woon wasaytukum yaa jumlata tullaabi bi talabi ilmi ma al aadaabi fi l ilmi wa taaddubi wa saayi wa hiya jaalibaatu raxabi yéen taalibi yëpp dénk naa leen dañoo sàkku xam-xam tey jëf jëf ju baax te yor te am yara tegin ak melo yu rafet نوان واعلم بأن بأن العلم والأعمال كأدب تكسبك الكمال من لم يهز من هذه شيئا ولم يحبه فإنه النفس ظلم من مت نيت بلا مت te tasawuf li ko tax a jóg mooy defar nit ki ba mat mu ne mat moom li koy tax a def mooy ñett yi nga koy boole da ngay am xam-xam xam li nga war a xam di jëf li nga war a jëf te li nga war a mel mooy alimu naafiq wala amalu saalih wala adabu mardi ñett yi ngay boole door a nekk nit ku mat mu ne koo xam ne ñett yi amoo ci dara bëggoo koo am ne kooku tooñ na boppam ndax du teg nit ku nar sa tekki dara lay doon kon ñett yi mooy cosaan yi mooy mooy mooy mooy keno yi usul yi usul yi mooy yooyu am na nag waaw léegi mu def xasaayis al xasaayis mooy sa li nga xam ne moo ràññale moo moo ràññale tasawuf sëriñ bi nga xam ne moom yii moom da nga koy fekk ci tasawufam te mën ngaa dem ci tasawuf keneen doo ko ci fekk bi ci nekk mooy tasawufam sunni la sunni tasawufam lépp ci sunna la tege lenn ñu ngi teg sunna nekkul ci biir tasawuf bi mu woote bi mu woote lépp luy bidaa rek ak lu diine xamut loola moom bokkul ci woote sëriñ bi kon sunni la muy daan ñaareel ba amal yi la tasawufu jëf la bu cosoo boo xam ne da ngay koy wane ci say melaw di sol ay ci sam col mbaa ci say waxin mbaa ci ñu lay wane woo nga xam ne ku la seen rek ne ah kii di la du muy wane woo ci kaw di ko wax nii rek du mu ñuy tuddee waaye jëf lay doon di nit kiy jëfe jëf la ju nit di jëf di melaw muy mel moo taxoon ba muy tënk tasawuf dane wal xaatim suufi wa aalimun amil بعينه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكبار منتزع القلب من الأفكار منقطعا من ربه من البشر مستويا دينار عين بمدر كالأرض يرمى فوقها كل قدي ولا تولي من بطنه إلا ملي يتوها الكريم واللئيم والبر والعافي وتستدين وكالسحاب وكسقي الماء في ظل وكقطر الماء في ظل والسقي باستثناء لأنه لم يكن كذاك فهو صوفي أولى ففي دعوة على المرض tasaw jëf la du ay wax xam-xam la buy ne ci nit ki mu jëfe ko na mu ko war a jëfee mu jëlee ko mel ne ko war a jural nee koo xam ne yoroo xam-xam ba jëfee jëf jëm yoroo meloo da ko woote waaye nekkoo ci kon tasaw mu amal yi daal wasatiya maanaam tasaw loo xam daa digg doomu daa digg doomu euh, ba euh, daa ba leneen war a jël da ngay boole jaamu yàlla yéenal ëllëg ak liggéey mi yéenal àdduna da boole wakilu ak sabablu da ngay boole sharia ak xaqiqa kon da ngay digg leen doo jël leen bàyyi leen da ngay ne ci digg bi ngay ne wasati la kon ba noppi itam euh, la maanaam tasaf la boo xam ne doone man yàllaa ma yitteel daw tëju ca biir néeg ba te koy dëkk fa di yéenoo ko fanaan di wird doo amal njariñ nit ñi doo fa saxante ak morom yi du tasaw boobu tasaw bu la boo xam ne da nga yittewoo sa mbirum bopp waaye da nga yittewoo mbirum xeet yi nga nekk luy yokk koom-koom réew mi luy jëmale kanam xeet mi defal jikko yi luy lijjanti jafe-jafe yi waa réew mi luy jeexal firnde luy indi jàmm bépp taxawaay bu nit war a taxaw ci biiru xeet da ko day day da nga koy da nga koy da nga koy taxawe ci biir tasawufam moom moo tax li ñu tuddee xidma nekk lu am solo ci biir tasawufam xidma te mooy jariñ doomu aadama waaw ba ca mujj nag mooy tasawuf la boo xam jaamee la maanaam daa daa ubbiku daa nangu tarixa yépp nee na yëg yépp a baax yëg bi neex a jëlal te tënku ca dana la àggale ci yàlla yëpp a yem kon daa dàq xar-xarloo nangu yoon yëpp ne la yow sama taalibe nit bi yëpp a baax wi di yoon ci neex mën nga koo jëfandikoo yow mi ànd man dog bu boo xam ne ci dog gaa yu baax yi ba neex a jëlal ku la soob ci gaa yu baax siyaareel moo xam ku dund moo xam ku fi nekkul la jokkal sa mbokk jullit yëpp képp wax laa ilaaha illa jàppal sa mbokk la kon daa ubbiku Euh, kon loolu liimaal bokk na ci li nga xam moo ràññale tasawufu sëriñ bi li nga xam ne kon waxtu wi tënk nañu euh, waaye kon lii daal ay jiwu la yoo xam ne mën nañ ca tegtoo ci tasawuf sëriñ bi euh, ñuy jégg lu baax a baax ñu ci am ci gàttal lu ëpp guddal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Afia ci waxtaan wu am solo mel ne fi nga tëjee nit ñi doyaluñ dafa mel ne waxtaan wi bu waxtu wi gënoon a yaatu xëy na lay gën a dugg ci nit ñi nga xam ne ñoo koy seetaan waaye dafa mel ne itam am na solo lool ba nga xam ne jéggi na dayo ndax fi mu tàmbulee moo sori lool ndax tàmbuli na ci sëriñ bi jamono yi mu fi dikk ak fi mu fekkoon jamono ak euh, fi mu ko yóbbu mel ne lañ cay tënk rek mooy sëriñ bi moom diiney lislaam ak tasawuf bii mu nekkoon jaral na ko lool kon nit ki lépp lu ko jaral rek mën na caa am lu kawe njortam kon sëriñ bi suñ borom subhaanahu wa da koo jaraloon moo tax mu egg fii mu egg dafa mel ne euh, ñi ko topp war nañoo góorgóorlu bu baax kon ci suñ borom subhanahu wa laa jaral leen euh, li ci mat a wax lépp sëriñ bi wax na ko euh, wax na itam fi sëriñ bi fekkoon euh, jëmmi tasawuf ak mbooleem taalif yi mu ci taalif wax nañ ne taalif bi mu ci taalif te a rëy ci ay taalifam mooy masaalikul jinaan kon képp koo xamante ne bi bëgg ngaa xam delluwaay ci tasawuf bi sëñ bi daan dund boo demee ci masaalikul jinaan da nga da nga da doyal ci wàllu googu ba te itam sëriñ bi mag ñi mu àndaloon ni mu leen daan sóobe ci yoon tasaw foofu sëriñ bi jaar na ci bu baax a baax ak euh, murit yi nga xam ne ñoo ko toppoon mu indi tënk-tënk bu am solo nag ci mujj ci li nga xamante ne bi ñiy dund tasawuf noonu lañu war a mel dafa mel ne loolu di lu am solo loo xamante ne bi bañ ca gën a jàpp rek mooy tasawuf rek du koo xam ne tëju rek nekk ci sa biir di wird walla ngay yëngal ay waaye la nga war a def rek ca gën koo kii mooy jaamu yàlla gi ci la bokk waaye liggéey itam ci la bokk te lool di lu tasaaroo ci jamono kon xam naa ngir xataayu waxtu wi rek e, jàpp nañ ne am na ci yoo xamante ni xëy na duñ ca mën a dugg lool lool e, dañuy fàttali mbokk yi ne waxtaan wi ñi ngeen koy yéen a ngi koy teewlu ci e, situ daayira Muxaddamatul Xidma dafa mel ne mbooleem ñi nga xamante ne bii bëgg nañ ñoo laaj ci fatwa yi nga xam ne mooy ñëw am nañ ay numéro yoo xamante ne bii moom la ñuy joxe képp koo xamante ne bii am na laaj bu la boo xamante ne war nga koo laaj ci diine boo ko yónnee ci 77 678 57 66 wala ci 77 284 38 61 bu ko defee am nañ fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne di ñoo féetewoo tontu laaj yooyu. آه، إذا وفي الختام نشكر جميع الضيوف الذين حضروا معنا في هذه الجلسة المباركة التي تعد واحدة من جلسات المحاضرات الرمضانية التي تقام في المسجد الجامع الكبير كل يوم طيلة شهر رمضان الكريم برعاية دائرة مقدمة الخدمة للمسجد القديم الطوبوي مواساة مع الإفطار الجماعي والمحاضرات تنتظم في ثلاثة محاور دروس وفتاوى وموضوعات متنوعة وكانت المحاضرة هذه وكانت محاضرة هذه الجلسة عبارة عن درس بعنوان حقيقة التصوف القديم مع العلامة الباحث الكبير الشيخ عافية نيانغ وتسدي الدائرة أبلغ آيات الشكر لجميع الضيوف خاصة المدير أحمد سامبو والوفد الأزهري المرافق له وكذلك الوفد الممثل لمعهد الدروس الإسلامي بتوكوربا ونرحب بكم في رحاب هذا الجامع المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yeah,